Euh, sëñ Abdou Lahad dafa am lu am solo loo xam ne sa turandoo sa turandoo bu baax waa di Cheikh Abdou daf ko mm-hmm. waxoon mm-hmm. dafa waxoon ne ñun murid di benn nattukaay rek lañ am mm-hmm. mooy képp koo xam ne ni yàlla def sëriñ Tuubaa neex na la yemalewuñ la fenn ci suñ biir wallaahi koo xam ne na ko yàlla def neexu la nag boo boo limaale la ci dara ndeysaan <laughs> borom kër gii di sëñ Abdul Fatah ñi ko xam ñëpp Mm-hmm. ak ñi koy dégg mm-hmm. xam nañ ne amul sago ci sëriñ Tuubaa ci lu wér bëgg na sëriñ Tuubaa mbëggeel goo xam ne mm-hmm. dafa dem ba dafa jeexital ci moom ba bu koy waxtaane sax doo fa bëgg a toog ndeysaan wala boog da fa toog ci ak ñeewant ndax munu cee wax ñaari baat yu àgg loolu nag daf ko wàll mboolem njabootam gépp njabootam gépp nag su ma ko waxee ay doomam ci lañ bokk ay taalibeem ci lañ bokk ay soppeem lañ bokk njabootam gépp ci lañ bokk noonu la mel ci Cheikh dul Fadal ndax sëñ Fallou ak sëñ Touba dañuy benn maanaam bëgg sëñ Touba te bëggoo sëñ fallu bëgg sëñ Touba ci yow. des na. bëgg sëñ te bëggoo sëñ Fallou te bëgg sëñ Touba bëgg sëñ Fallou bëgg sëñ Touba te bëggoo sëñ Fallou. Mm-hmm. ndax sëñ Fallou dafa wax ne damaa jël sama lépp daf ko ci biir sëñ Touba Cheikhul Khadim. Mm-hmm. deseetuma dara. Mm-hmm. du ma doom ji bëgg a doon baayam. du ma taalibe bëgg ak seex damaa dugg ci moom moom rek. Cheikh Mamadou Fadel mii nga xam ne moo woote bis bi nag mhm. alquran dafa wax ne wala taksumu shahadata mhm. wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu mhm. am na fu mu waxin ne wa aqimu shahadata lillah na ngeen di seede te yàlla rek tax waaye ñun ñi ko xam jamono teeg moom lii sëñ Fall doon wax léegi lu wér a wér la ku rafet jikku la ku rafet aw doxin la nit la koo xam ne fanweeri at yi ngay wax ne moom la def bis bi ak ñaar hmm. ku ko xamoon ci édition yu njëkk yi ba tey jii hmm. amul amul looy wax ne mooy mooy moom lañ war a yokkaat ci moom wala lañ war a wàññ ci moom hmm. nam meloon ca at yu njëkk yi ak at yi xarfan bi xarfin la nit ku am kóllëre nit ku am ko yëg ci doomu aadama doomu aadama yi de sëñ Fallou waxoon na ne ni ko sëñ Fallou may waxee léegi ku leen di jàpp dañ leen di jàpp ci ay loxo yu dëgër Mm-hmm. waaye cati loxo kenn du ci téye nit ndax koo cof mu rot mm-hmm. daan na wax ne it koo wan sa bopp yaa ko wan boppam mm-hmm. te doomu aadama yàlla noppi na ci ñoom te yàlla mi leen bind moo leen gën a bëgg masha yàlla bu taxawee di jëlal doomu adama défense ci diggam ak iblis ba muy wax ne maa leen gën ndax danga ma bind ci sawara ñoom nga bind leen ci ban suñ borom faxruj la ko wax innaka mina shaakirin yow de ci ñu suufee ci ta soofe ci nga bokk kon suñu borom bëgg na doomu aadama loolu nag moo jeexintaloon ci sëñ Fallou jeexintal ci njaboot gi. Mm-hmm. moo tax sëñ Fallou mi di bàyyi galas mi. loolu ma wax ci moom ma wax ko waaye jikko ci rafet ji. sëñ Fallou nag ku baax la. Mm-hmm. ku yiw ku am yërmande. ku doomu aadama. ku mën a suturaal nit. muy El Hadj mu mag moom. Mm-hmm. looloo waral mbëggeel gii ko doomu aadama yi bëgg nuñ ko teg fenn amul illa ndax yërmaande ji ak njëriñ lu bis bi nag ni ko sëñ Fallou wootee rek. Mm-hmm. mooy woote bi ñëpp la sëñ Fallou na ko sëñ Tuubaa waxee woon yaa ahla barri yaa ahla baxri ojooli barri baxri shaqaay képp koo xam daal bëgg nga njëriñul àdduna ak alaaxira te li sëñ Fallou di séddale nga bëgg ci. Mm-hmm. wuyusil ci bisub Baye Galass boobu. Mm-hmm. amul xejj amul seen. amul mbokk amul soppe amul xarit képp ku bëgg lu baax daal woo la. ndax bis la boo xam ne. yim boole dafa bari jaamu yàlla yu bari la boole. dañ ciy sant moom Mamadou Fadal. waaye dañ ci jokk ak mbokk. dañ fay daje di waxtaane lu baax. te inda zikri saalihin tanzilu rahma. waaye dañ fay ñaanal way daw yi. di leen fàttaliku. ndax njabootu sëñ Fallou googu ni mu ko tudda léegi. macha allah at mu jot mu tànn ci kenn fàttaliku ko. Mhm. ndax ku ne xam na ne. Mhm. wa arxabul asiyaay lil amwaati raddun ila dunia ma alxayaati mm-hmm. walaw sooyaatan faxat li yaamalu saalihatan tan fa min qafalu mm-hmm. kon yow mi toog sa xel dem ci ñoom mm-hmm. nga jël bis dëppaleen ko di leen ci ñaanal di ci jiital alxuraan xasida kenn amul sa fay waral ku bëgg a jariñ ci bis boobu daal boo fu ñëwee da nga jëriñ. da nga allah